réewum Sénégal day budul jaxannama paasam diggam ak jaxannama matul fukk bu 24 heures yéen a kaay di waxee wàllu ger goo xam ne daanaka mi ngi tukkal réew mi l'enquête quotidien naan koon réew mi ay drame faatu yoo xam ne bu gën a métti sa morom nga ni bii mooy am ci réew mi vox populi naan xoolal ma jakartamaan bii rek dañu koo rend ci anam wu métti ci diwaanu Thiès l'enquête ne ko dikkal ci man maa mën maa ëpp doole suñuy ndaw nag waxtu woowu ñi ngi faatu ci anam wu métti ci waaxu réewum Sénégal tribune yéen a kaay jox kàddu bugaan mu naan xale yi dañuy daw suñu rakk jigéen yeeg yu góor yi suñu doom yi ma ni la dañuy daw métit yi nga xam ne moo ne ci réew mi faatu nag gën a leen dund ci jaxaanam ak nga xam ne moom ci réew mi lanket naan kon ma ñëw gëy ndax ñi ngi xam le ni ñetti téeméer ci doomu réewum senegal dañ doon daw metit gi di daw xiif gi di daw fitna gi di daw njàqare goo xam ne ñu ngi koy dund ci seen biir réew senegal far nag seen gaal daal réer ci wax yi réew mi quotidien naan ko déet gouvernement gu Sénégal jaarale ko ci ministère des affaires étrangères bi Aïssata Tall Sall jiite ña ngay jël loxo teg ci sikkim mel ni nag ku def jaaxle lii fu mu xewee ndax nag senegal jot nañu xibaar ne téeméer ak juróom fukk ci sénégalais for nañ leen ci waaxu gi yi jamono jii ña nga dax la xaar nag ñu daal di leen di seppi andi leen ci réew mi waaye lii ngeen di wax xale yii bàyyeekoo Kafountine réer ay sata naan mësta am ndax yëguma ko libération yéeni kaay mel ni ku naan konte ngaayam ci yëguma gi rek de ndax nag Kafountine ma ne la mbir ma am na fa ñett ci gaala yoo xam ni dafa yeb ay sénégalais yeb ay guinéen yeb ñu bàyyeekoo Sierra Leone ak ñu bàyyeekoo Gambie naan kon soo bëggee dégg aysata lii moo am Malick Diouf mii nee na doomam wax naak moom laataa muy jël gaal gi Marème Mbaye ne ma ne la suñu doom yi duñ leen joxoñ te leen yedd ñañuy yedd kay mooy gouvernement gu Sénégal mi nga xam ne moo jël ay ndawam toroxal leen seen réew ba nuy gàddaay faatu nag dem ba gën a leen dund seen biir réew David Diatta maire bu Kafountine ne at wii daaw ma ni la lu toll ci fukk ak juróom ci ay doomu Sénégal di màngankat fekk nañ leen ñu faatu ci waax yi ñoom ñëpp dañoo gas benn bàmmeel boole leen ca suul docteur Alioune Ba bu Greenpeace Afrique naan xibaar bii nga xam ni Greenpeace joxe na ko mani la moo am metti na waaye moo am critique yéen kaay naan man Greenpeace kay ma ngi cay gën a andi ay leeral nee na gaal gaa ngi bàyyeekoo Kafountine ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin secours espagnol yi ñu ngi wër ngir wallu xale yooyee gisuñu leen ba tey di doomu réew mi beneen kuréel bu nekk Espagne xam leen na it ne beneen gaal bu toll ci téeméer ak ñaar fukk ci doomu Sénégal it réer na bugaan géey dani naan leen lii dara du ko dindi te dara du ko faxas ñetti téeméer ci sénégalais yi nga xam ne faatu nañu naqarloo na xol yi tàngal na na waaye dara bu buñ demee ba dëkk ci réew moo xam ne dem faatu daf lay gënal toog ci réew moo mais dund ca problème am na géyee nga naan yaakaar ñàkk na it ci réew mi ndax nag ñun réew mi ñu dëkk ci boppam ngir mu lekk day talal loxoom bitim réew ay a ngi nii Sénégal leb ak ñaan la nekkee dara nag andiwuñu ko ci réew mi lu dul ndóol ñàkk goo xam ne lu ëpp juróom fukki at a ngi nii kenn teguñu ko ku dul suñuy système ku ñëw nag gën a yokk ndóol réewum Sénégal te gi xam lan moo ko waralam bëgg bitim réew duñu jébbal ay ndimbal moo tax Sénégal woote ñàkk ba faf jaare refa ni wëndëng dara la ni la réew mi amuñu ko dara ñu jël suñuy am am nag jébbal ko nasaraan gi bugaan géy dani naan jug jot na ngir Sénégal moom boppam indépendance bañ doon wax 1960 ak tey mu am ci réew mi ñu tàqale Sénégal ak ñi nga xam ne dañuy sàcc suñu am am ñi nga xam ne dañuy muucu daanaka suñuy dereet Sénégal ak Afrique goo xam ne soxlawuñu tay la seeni doom ngir daal di ciy génn bugaan naan maa ngi jaale ñi seen doom faatu waaye di leen ñaax ci ñu soppi ndax buñ soppiwul système day daañu ko réccu l'indépendant yéen kaay naan maan bugaan géy dani la xëyee ci sunuy doomu réew yi nga xam ne ña ngay faatu ci anam wu métti ca waxe ca bitim réew le regard yéen kaay naan maan bugaan géy danee nga naan ñàkk jubluwaay ñàkk yaakaar ci Sénégal uk ëllëg moo tax suñu doom li dem tey la seen bakkan bitim réew Ousmane Sonko ci yéen bi naan dara suñuy politique publique ñoo daal di échoué Sénégal yaakaar ga mu amoon daal di tas ndaw yi seen yaakaar ñoom mi daal di tas ñuy wuti yaakaar ga bitim réew te kenn tegunu ko Ousmane Sonko naan ku président Macky Sall ku ayam Sonko naan ku ci président Macky Sall naan ndaw yi toog leen fii ci réew mi tekkee ci réew mi fekkee lépp ci réew mi Ousmane Sonko naan bu ngeen gëmee ni coppite du am day yéen a ngi nax seen bopp bu ñu àndandoowee ma ni la xeex-xeex bi nit mënta wax ba Sénégal gii du ñoŋ nit mënta wax ba ndaw du juddoo ci réew mi tekkee ci réew mi Thierno Alassane Sall naan Sénégal day lii mu nekkee fi mu ne dafa mel ni ko tayul libération yéen mel ni ku naan kon réew mi day bu dëggul liggéeyu jàmbur dina ma jaaxal wala Tunisie lu toll ci juróom benn téeméer ak juróom fukk ci màngaankat yoo xam ne dañ leen jagat jagatee yóbbu ba ca désert ba ca Tunisie daal leen fay sànni am na ñaari néew yoo xam ne ma ni la fekk nañ leen ci désert ba ñu daal di faatu waxtu waaw turbine yéene kaay naan maan réew mi moom politique moo koy doxal ak i deal politique yoo xam ne fi mu ne Karim moom lal nañ ko basa ngir mu ñibbisi si réew mi ab deal ak i arrangement yoo xam ne mi ngi am diggante Sassou Nguesso am diggante Mohamed Émir bu Qatar ak nguurug Sénégal lépp nag ci ñibbisi Karim Meïssa Wade léegi ko mel ni ku naan maan gisagu leen dara de ndax assemblée nationale moom lal nay basangam woteel président Macky Sall lépp lu tukkee ci dialogue ba waaye Sall loo xam ne tax na ba fii ñaari at moom président Macky Sall heure bu xëyee mën naa xaatim sayal assemblée nationale libération yéen kaay mel ni ku naan maan assemblée goo xam ni ay député am dañ leen di yóbbu kaso Birame Souleye moom it bokk na ca jagat-jagatee ba tàbbal kaso di jee naan kon déet neel Pastef kay ña nga ca kaso ba ndax képp kuy kàngamu Pastef boo nekkee ci biteet sag liberte daanaka ci xottu gerte la nekk ñee nga ca bra la ñeneen ñaa ngi ca kaso ba le témoin yéen kaay naan kon moo taxit cooki fin diggante président Macky Sall ak Ousmane Sonko mënta ñàkk ci ci réew mi lii mani la faaw mu am tribune yéen kaay naan kon waxtu woowu cooki bi moom mi ngi ci biir président ki Sall ki gaayam fukk ci ay candidat yoo xam ni APR la ñu bokk mani la ña ngay xëccoo di rayante seen biir ngir wutu président Macky Sall boobu diggante amadu Ba ak Abdoulaye Daouda Diallo ña nga nekk ci guerre goo xam ni maar day taali la te mooy yéen kaay naan kon bul ko wàññi Arona Dia Abdoulaye Daouda Diallo ak Farba Ngom kay ñii ñooy ay opposant yu Amadou Ba président Macky Sall jébbal Amadou Ba lenge yi ak ñu faatu lan yamale ay responsable ci biir parti bi ma ni la fi mu ne ngeen bu nañ ba dëgër ngir fas yéene dëkk président Macky Sall maam booy jaawo moom nee na la président Macky Sall dogal du ko topp maam booy fas yéene nag sàllar ñikku ci kaw président Macky sàll di xam leen ni nag candidat la l' yéene kaay naan man ministre Moustapha Diop moom xam leen na ni candidat la daar daar te yéene kaay bi naan man dawu ca làqu ca dafa taxaw ne nag ne candidat coalition Benno Bokk Yaakaar la yéene kaay bi naan man mbapatandoo ak président Macky Sall ba mu duggee ci politique ak tey ànd koog moom moo tax Moustapha Diop tey tax taxaw ne man la moom it candidat la ngir wutu président Macky Sall ci boppuk réew mi Vox Populi naan man candidature yu bari yi moo tax président Macky Sall benneen xeetu parrainage la indi ngir gaay yi nga xam ne dañoo bokk moom parti te bëggu koo dëkk président Macky Sall naan leen xalaa mandir bàjjo fii moom du ngeen fi jaar fa yàllaahu direct news naan man mbir yaa ngi bëgg metti nag diggante bennoo bokk yaakaar Pastef ak parti démocratique sénégalais fi mu ne ci wër kan mooy doon seen candidat la ñu nekk ndax nag ku ci ci ñoom ci plan B nga daal di toll deux fanweer ak juróom benn ci candidat moo am ci réew mi ci élection présidentielle boo xam ne kenn la ñuy tabb ngeen xamee ko noonu le point yéen a kaay naan maan waxtu woo marché zinc dafa tàkk ba maar day taali lu ëpp ci cantine daal di cay lakk-lakk gu metti ministre Abdou Karim Fofana dalal seen xel di leen xam xamle ni nguuru Sénégal dina leen jàppale waaye tam promogem dina ko taxawal foofee ca Pikine turbine yéen a kaay naan maan lu mu metti metti bu leen fàtte ni sunu ndaw de ñu ngi daw réewum Sénégal di daw xiif géeg mar gi di gi tas bés bu yàlla sàkk di daw yoo xam ne ndaw yaa ngi koy dund ci réew mi Sénégal gii la ay ndawam dee gënal leen toog ci réew mi di tumranke Sénégal gii la ay ndawam dee gënal leen toog di gestu nday ak baay di faatoog xiif Sénégal gii la ay ndawam dee gënal ko di dundeeg yaakaar bu tas l'évidence yéene kaay naan konte Sénégal gii dey teg nañ fi FONGIP Sénégal gii teg nañ fi ANPEJ Sénégal gii teg nañ fi DER lii lépp nag ngir ñu jàppale ndaw yi waaye tam jàppale soxna yi ngir seen ëllëg ñoŋ bugaan géy dani naan kon terewul Sénégal gii fi sunu rakk yu ndaw yeeg jigéen yi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 77 562 24 24